asalaamaaleykum mbokk yi teel dibéer ñaar fukki fan juróom ci ramadan muy weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëpp fukki fan ci weeru avril ci ñaari junni ak ñaar fukk ñett fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ciy teete rek wattandiku mooy ku ca watu wala ku tàggoo ñaanu bis bi yow yàlla ab jéggalekat nga te bëgg ak jéggale yàlla na nga ma jéggal allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni xadiisu bis bi jëleef na ci abdullahi ibnu omar yàlla na yàlla gërëm leen mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam daan na liatikaaf ci fukki fan yi mujj ci koor gi liatikaaf mooy ak jaamu yàlla goo xam ne nit ki day taxoog jàkka ja te yéene ci jegeñ lu boromam loolu mooy lixtikaaf xam naa ko dem ci waroom xam-xam yi ak téere yi dana na ko gën a leerlal xadis bi dëppoo nañu ci an abdullah ibni omar radiallahu anhuma qaal kaana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yactakifu al asra al awaaxira min ramadan muttafaqun alayhi waxtu bi lii suba waxtu dana tàbbi cinq heures waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom ñett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 jant bi dana fenk 6 heures 53 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñett di so 19 heures 19 juróom ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom ñeent waxtu jàpp wi muy waxtu wi ñuy bàyyi xëdd 5 heures 30 waxtu yu tegal fanweeri simili waxtu dog wi 19 heures 23 juróom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin